amoon nañ jataay man ak moom. bureau parti réew mi bu Touba amal ay coppat yu am solo si biiram. li ko sookee bokk na si contexte bi ñu toll di wàccaayu élection législative yi ak li ñu génnoon doon local yi. ginnaaw nag bi ñu dajee ak seen njiitu parti di Idrissa Seck ci lañ jël décision yu nu mel. yëpp yàlla dogal na amaan nañ amaan nañ ñaareelu ndaje boo xamante ni ànd nañ ak ñenn ci responsable yi ndax ñëpp mënuñoo dem. day baax nag. ñu yaatal parti bi réaménagé waat ko ndax ku dolli care yokk ñeex ci loolu nii la tëdde ñu xam ne à partir de cette date du 25 3 2022 ginnaaw conclave bi am lii la réew mi jàpp ni ni la réaménagé bureau bi ñun ñëpp xam na ni coordinateur communal ki ko doonoon moo ko doon mooy monsieur Mafari Ndiaye. waa réew mi jàpp nañu ni kat élection yi gën doon local yi taxawaay bi rafetoon na seen diggante ak benn bokk yaakaar dina soññi seen i militants ak responsable ñu gën nag taxaw si bindu bi. ñu leen di sant ci effort yi ngeen di def bi inscription bi commencé gis nañ ne yéen a ngi wu di yóbbu militants yi. ñi nga xamante ni jotaguñu woon amaguñu woon seen ay carte d'identité dem nañ bindu ji mais ñu leen di ñaaxaat di leen wax ne leen ñi jotu ñi jotut a bindu nañ dem bindu ji. moom Mafary Ndiaye jàpp na ni kat poñ yi taxoon ñu wootee bokk na si def bilan waaye tamit yóbbante kaddu président Idrissa Seck ne kat mi ngi si jàmm te nag mi ngi bàyyi xel loolu Touba lépp lu ngi def ump leen gën a nag tamit soññiwaat seen i responsable yi ñu gën a mën a préparer législative yi. mu wax ne na ngeen bàyyi xel élection yi xam importance bi mu am. buñ ci accès effort yi ngeen defoon ci dernière élection yi ngeen gën cee taxaw ba yàlla dogal ñu mën a gagné élection yi fii largement. fii nag jàpp nañu ni bu dee si wàllu aménagement yu bees yi moom Mafari Ndiaye gis na ni kontext bi moo ko laaj jóguñu nag ngir wàññi mais dañuy yokk waane si kaw mu nekk groupe bu mën a ànd liggéey ngir am ndam. ñëpp xam nañ ne parti politique ku ko taxawal li ngay soxla mooy lu koy yokk waaye soxla woo lu koy wàññi dañuy wax ne politique addition la mais du soustraction. ñun du ñu soustraire kenn ci parti bi mais parti bi ak ni muy doxee organisation bi parti bi war a am niñ koy defee lépp ci consensus lañ koy def yaakaar naa gis nga assemblée bi tey. ndaje bi doon am si salle de conférence bu restaurant Eldassi bu Touba mbooloo mi jóge fu nekk nag ñëw takku woon loolu mu doon ay jigéen ak ay jeunes di fàttali tamit bureau boobu pàcc bu nekk am nga si wàll.